mbokki Sénégal mbokki amateuru lamb yi ki woote barki dem boo njaay ci arène nationale wàcce ko ba mu def doom moom Fallou Ndiaye njiital Ndiaye production dafa ne sama yaram dafa tàng dootuma teggi sama tànk ni ma bégale woon mbër yi bégal ko amateur yi noonee laa leen di bégale waat woo leen ci arène nationale le 10 avril fas yéene dellu mbàttu ca ndaa la ma ne mbokki amateur yi ku la jox ndekki jox la añ bu la diggee réer woon nga koo gëm kiy dundal lamb te du ko wootee faaw amateur yi si ko faaw mbër yi si ko ndax kenn du dugg lambam di mer moom njiital Ndiaye production dafa defati boroom mu ne ma loolu mooy drapeau 100 pour cent bawal mooy drapeau bawal sans frontière bawal bawal yi nga xam ne daan doole rek lañ leen xamee bawal bawal yi nga xam ne domaine boo dem fekk leen fa ñuy ay jàmbaar ñoom laa fas yéene delloo njukkal dippe leen drapeau bi wax bawal bawal yi faw nga wax le ministre Mor Ngom nekk ministre conseiller coordonnateur départemental de la commune de Bambey maître Pape Sène maire de Ndondol docteur Djibi Thiaw maire de la commune de Réfane monsieur Daouda de lutte Badajon écrit Bawol mbooloo Assane Ndiaye promoteur de lutte bu mag bi directeur général Bawol TV président production di promoteur de lutte Baye Serigne Tine di premier adjoint au maire de ku ci mel ni Serigne Djib Fall ak ku ci mel ni Zal Ndiir Gora Ñaa ca Pàkku Bel-Air Mamadi Diouf bu ITV Ibra Diouf di secrétaire général jeune amateur wulli wulli waat Bawol Bawol bu mag bi Modou Baye Fall di PDG wu Xelcom automobile Mor Mbaye borom géwél gi production di promoteur de lutte petit production di wu Ndiaye global business Jack Sarr di vice vice président Bawol sans frontière Mahmadan Sougou nekk responsable Pastef Arefan Bada ñi ngi di président mouvement Karim Kay Soppi Babacar Dione reporter de lutte bu mag bi ca Equivox Modou Anta sans frontière ak Basirou Diouf bu wasaare lamb ma ne mbokki Sénégal mbokki amateur yi bésu Bawol Bawol yaa ngoog kan moo xew le ñu ne Fallou Ndiaye Bawol Bawol bu mag bi ñen la dippe drapeau bi ñu ne Bawol Bawol yi rawatina waa Bawol sans frontière ma ne fas yéene sargal Yaxya Joob Yékini ancien roi des arènes doomu Joal bi doomu Baasul bi ki def temps ci roi des arènes booy wër mérite doo ko teggi muy jëmm ji nga xam ne bu làmb ji tollee fii war nañu koo delloo njukkal di mbër mi nga xam ne ñépp ay doon roi des arènes ndax melokaanam Fallou Ndiaye ne moom laa fas yéene sargal di ci woo mbokki amateur yépp muy le 10 avril ci arène nationale mise ba di 4 millions de francs CFA moomoo ngoom fas yéene janoog mbayeng lum ñu sàjjati foofu defati cosaan bégal mbër yi bégal mbokki amateur ñu TV Equivox TV la 2STV ànd ceeg wasaare lamb ànd ceeg institut sénégalais de la boulangerie pâtisserie ñu gën koo xam ci ISBP ànd ceeg menuiserie aluminium 18 safar Ndiaye global business ànd ceeg best vision ànd ceeg DPA défoncé pièces auto coloré immobilier VIP fast food c'est Adja Degen ak Xelkom automobile ma ne mbokki amateur yi bés baa ngoog avril ci arène nationale ñu ànd ak Ndiaye production foofee dara du fa yomb te lu fa waay indi du des.